bay téere ba bàyyi ko caayaa cay des hmm. eh, mel ni yooyu yëpp fondement ànd lay junju waaw ndax ànd tuutiwul waaw ànd bu dee bu la neexee rekk nga bàyyi ko booba jógewul fen jëmul fen waaw booba jógewul fen jëmul fen ànd bu jóge fenn te am fu mu jëm du la neexee nga bàyyi ko waaw waaw ah, mu dellu ci walakin suxbatan wa ixaa waaw walakin suxbatan wa ixaa waaw walakin wa ixaa waaw mu dellu ci la yonent bi waxoon abu bëkkër ni ko dama mënul am xarit nde kon nga nekk xarit ni ko waaye dañu ma tere xarit ànd ci turu yàlla ak bokk ci turu yàlla rek lañu ma jox waaw mu mel ni kon nag waaw Omel ni kon li cheikh al khalifa dan wax li sama and yombul ndax duma dey and te duma ko leung waaw te jamono lo rek lañu bëgg waaw sëriñ baama lëng waaw sëriñ baama dee waaw nee na mënuma ko waaw nee sëriñ rekk lay mën a nekk ba faw ba tax na am na loo xam ni du bëgg sa bopp bëgg sa bopp nag mooy nga xam li la booleeg si sëriñ ba bu la déeyul it nga déey sa bopp bu la lëngul nga lëng sa la leen boole ëpp na loolu gor la ci yàlla gor nga ci yàlla ngeen daje ci yàlla jeex na waaw jeex na ba tax na rekk nu di ci bàyyi xel di ci bàyyi xel di bàyyi xel di bàyyi xel bu nit ñi masaan ñëw di ziyaare ci góor gi ma génn dem ca ta toolu màngo ya toog parce na koy nettali waaye ku ne yaa yëg la lay jëriñ ku ne ku ne yaa yëg la lay jëriñ ولكن صحبة وإخاء نعم.